الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا mbokk ci yàlla ginnaaw sant borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko ñaanal moo ki saxaabaam ridwanullah taala alayhim ajmain ak képp koo xamante ni topp na yoon yonent bi ak saxaaba ba bés pénc di taxaw mbokk ci yàlla lan la ñu préparé daje bu ñu waraa daje dajeeg suñu borom subhaanahu wa taala lan la ñu préparé daje bu ñu war a dajeeg suñu borom subhaanahu wa taala mbokk yi ci yàlla adduna day naxaate adduna day naxaate lenn rek moom moo ci wóor mooy dellu ci yàlla muy dellu ci alquran ak sunna mooy sellal suñu jaamu bu ñuy jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak dara topp alquran topp jàngaleen yonent bi alayhi salaatu salaam cig jëf cig wax suñu dund bi yëpp ñu daal di koy jox suñu borom subhaanahu wa taala mbokk yi ci yàlla adduna du dara ana ñi fi amoon alal ak i alal alal judul jeex tey anañu tey ñu ngi seen suufu bàmmeel ñu ngi ci suuf ca seen bàmmeel ana tey ñi fi jàppoon ni ñoom ñoo fi ëppoon doole ana ñi nga xamante ni seytaane naxoon na leen seen taar naxoon na leen seen alal naxoon leen seen jëmm naxoon leen seen mbooloo mbooloo bu bari naxoon leen tukki bu bari naxoon leen lépp yomboon ci ñoom fa aynahumul aan fa hum taxta thara tey ñu ngi ci suuf mbokk yi nañu waajal mooy ku ci nekk ci ñu na waajal bàmmeelam naka ngay dajeeg borom bi subhaanahu wa taala aduna aduna day nax ki amul xel mbokk yi dee al mawt al mawt dee dëgg la ki gañe mooy koo xamante ni ñëw na bés pénc ñu musal ko ci safara soril ko safara yóbbu ko aljanna kii moom mooy ki gañe loolu la borom bi subhanahu taala wax ndax kenn ku ci nekk ci ñun dina mos na dund waaye dina mos dee yàlla nee na nas nafsin dhaiqatul mawt ñun ñëppay dee bakkan bu mos dund mos dee kullu nafs dhaiqatul mawt su doon baax mooy tax kenn du fi jóge kon yonent yi duñ fi jóge kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yonent yi alayhi wasalaam duñ fi jóge bu doon bew mooy tax kenn du fi jóge firawna du fi jóge bu doon alal xaarun du fi jóge mbokk yi loo mën a am bés dina ñëw dee dina la dikkal dina dugg sa biir kër fekk la fi ngay liggéeyee fekk la ca avion ba ca kaw fekk la oto bi ngay dawale terrain bi nga nekk di sport dee fekk la fa ndax ñëpp ay dee waaye fexeel kat avant ngay génn àdduna mooy fekk bokk nga ci xaritu borom bi subhaanahu wa taala ndax kullu nafsin daa'iqatul mawt te boo gaañoo nit ñi dañ fi dajaloo ku nekk di wax di wax waaye li wër ti wër mooy mooy loo jëf rek moom ngay fekki ku gaañu ku ne am ñu jooy am ñu triste waaye yow fexeel kat mooy ba ngay fa ngay dajeeg borom santaala na fekk yóbbaale nga jëf ju baax ndax kat ñëppay gaañu ñëppay dee yàlla nee na kullu nafsin dhaiqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuxzixa ani nnaar wa udxila aljanna faqad faaz ku ñu solil safara yóbbu la aljanna texe nga wamal xayaatu dunia illa mataaul ghurur aduna jouissance bu éphémère la bu la aduna nax bu la alal nax bu la ay daraja ay poste nax bu la mbooloo nax bu la taar nax ak noo bëgg sa yaram ca suuf lay mujjee nañu tuub dellu ci yàlla nañu tuub dellu ci yàlla yow mii di lekk lu xaraam yow mii di lekk lu xaraam di lekk riba tuubal nga dellu ci yàlla avant ngay mujjee ci suuf avant ngay dajeeg sa boroom subhanallah yow mii di lekk lu xaraam di dundal sa njaboot ci lu xaraam tuubal nga dellu ci yàlla avant dee di la dikkal yow mi di détourné alal jurul jeex ay millions ay milliards alalu doomu aadama yi tuubal nga dellu ci yàlla yow rek yaa nekk sa bàmmeel say ministre duñ fa nekk say àndandoo duñ fa nekk kenn du la fekk yow rek sa bàmmeel tuubu ilallah yow mii di def lu xaraam di njaaloo tuubal nga dellu ci yàlla yow mi di wax lu dul dëgg di jëw di fen di ràmbaaj tub ilallah tuubal nga dellu ci yàlla yow mi di lor say dëkkandoo tuubal nga dellu ci yàlla al mawtu xaq kullu nafsin raiqatul mawt yow mi di lor sa soxna tuubal nga dellu ci yàlla nga yërëm ko suturaal ko ormal ko yëkkati ko ngeen tegu yéen ñëpp ci yoonu aljanna waaye yow mii di sonnal sa borom kër tuubal nga dellu ci yàlla avant ngay dem sa bàmmeel yaral say njaboot ci alxuraan ak bu la àdduna nax nañu tuub avant bés bii di ñëw bés boo xam ne jooy naan yàlla may ma ma delluwaat mais fekk c'est trop tard حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون yàlla nee na ku nekk ci caaxaan nekk ci mooy yàlla fàtte yàlla fàtte alxuraan fàtte sunna di daw ginnaaw àdduna alal jaral ko lu ne mu nekk ci ay bàkkaar ba dee dikkal ko yàlla nee na da gis day rëccu naan yàlla may ma delluwaat su ma delloowaat ma rek ci àdduna ma jaamu la lu mu néew na ma jaamu la avant yàlla may ma ma delluwaat yàlla nee na mais c'est trop kàddu la goy wax rek waaye jeex na yow yaa ngi dem ca bàmmeel ya mbokk yi yow ak man suñu dëkkuwaay mooy bàmmeel lan la ñu préparel foofu ak daje bu ñu dajeek yàlla yal na yàlla sàmm ñu yàlla yërëm ñu subhaanahu wa taala yàlla barkeel ci njaboot gi yal na yàlla suturaal ñu yal na yàlla sàmm ñu boole ñu ca waa aljanna jéggal ñu ñëpp suñuy bàkkaar wa salli allahuma wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman kathira